asalaamaaleykum tey nag xam naa dañoo bëggoona a def benn waxtaan jubluwaay bi nag mooy bàyyiloo xel nit ñi yenn mbir yi nga xam ne dañ koy wax te xamuñ dëgg-dëgg danger bi nga xam ne moom moo ci aju xam nga lu ci bari dangay seetlu des fois su ñëwee wax nangam ne lii kat yàlla diglewu ko léegi da gis ñoo xam dañuy ñëw di wax ne waa ñun moom lu mën a xew ñun dañ koy def. ci misaal suñ waxee ne li ñuy wax naafila koor yàlla diglewu ko yàlla li mu digle ci naafila ci weer yëpp la ci weer yëpp lañ koy def waaye naafila yi ñuy wax taraaweex loolu dañu ko sos ci diine te ginnaaw bi fi yonent bi bàyyi ko lañu ko sos ci diine dangay gis ñoo xam dañuy ñëw ne waa ñun moom lu mën a xew dañuy naafila te su ngeen xoolee fii senegal mën naa wax ne man mii sax daan naa def loolu su weeru koor jotee di di ngeen gis yenn saa yi sax ay xeetu naafile yoo xam ne dinañ koy tasaare di wax naan naafile bis bi nàngam la nga gis ñoo xam ne it jàkke yoo xam ne nit ñi dañ fay dajaloo saa yu weer koor jotee di def lu ni mel te loolu dañ koo jàppee diine jàpp na léegi mën nañ caa jëlee ak pay seen diggante ak seen borom te fekk ne li koy waral rek mooy umpule ndax nit ñi dañuy fàtte ne yàlla moom mooy ar yàlla moom mooy ar yàlla mooy arhamar rahimin dañuy fàtte ne yàlla moom mooy ki ëpp yërmande ñëpp te moo ëpp yërmande ci mbindeefam yi yàlla moomu nag lépp lu ñu amal njëriñ digal nañu ko waaye xam nga ñun su ngeen ñëwee comme ci lu mel ni suñu dëkk yi dafa am lu ñuy yare dafa am lu ñuy yare ci diine mu nekk nag yar boo xam ne lu woroo la ak njàngalem yàlla mu nekk yar boo xam ne lu woroo la ak islaam maanaam nit ñi dañ leen yar ci diine yarin woo xam ne te du yar bu normal du yar bu baax fekkee ci diine yàlla lañ wax du yar bu baax ni ñeen yaree mooy ñoom dañoo jàpp ne lépp loo gis ne lu baax la ci sam xel wala nit ñëw ne lii de lu baax la mën nga koo def yenn saa yi sax nit ña koy digle comme ci misaal lu mel ni yooyu ñuy wax ay naafile bis bi nga xam ne dañ ciy wax ay njëriñ lii ku ko def nangam ak nangam lii ku ko def nangam ak nangam te nit ñi seen xel du dem ci waaw ñun lii ñu ñuy dig ci jëf yi kan moo ko wax lii yàlla ñu ko wax wala kan moo ko wax ndax damay faral di fàtte ne yàlla jëf yi nga xam ne moom la digle mu mel ni julli koor azaka acc njëriñ yi ngay dégg ci jëf yi nga xam ne yàlla diglewu ko nit ñi di ko ci wax doo ko fekk ci jëf yi nga xam ne yàllaa ko digle yàlla di ko ci wax te moo nekkat moom mooy kii faye ndax moom moo ñu moom moo ñu indi fii moo ñuy rey te moo ñuy àtte ëllëg am lum ñu toppaloo muy am njàngaleem am fu mu ñuy yemale foo xam ne fa lañ war a yem mais dañuy yar yarin woo xam ne ñun dañoo jàpp ne lépp lu ay nit wax ne lu baax la ñun dañ ko war a mën a def te fekk ne diine demeewul noonu diine yàlla ay limite lay tëral te limite yooyu li mu ci wax dafa leer dane wa man yataadda xuduudallahi faqad zalama nafsahu ku jéggi dëxalu yàlla yi tooñ na boppam maanaam yàlla limite yi mu tëral ku ko jéggi ku ne rek tooñ nga sa bopp te yàlla mooy wax ne wa man yataadda xuduudallahi fa ulaayka humu zaalimuun koo xam ne dafa jéggi fi yàlla yemale mbir yi yàlla mu ne ñiy def loola ñooñu ñooy tooñkat yi te yàlla ci boppam mooy xam la ne ñi weddi ñooy tooñkat yi nga xam ne kon ñàkk a yem fi la yàlla yemloo loolu ak weddi la ci yàlla mu nekk lu dangereux mooy li may wax maanaam nit ñi dañuy def loo xam ne ñoom seen bopp xamuñ loolu ban taxawaay la am ci diine ndax yàlla moo wax ne wal kaafiruuna humu zaalimuun wuy weddi ñooy wuy tooñ yi kon nit ki fu mu jéggee fi ko yàlla yemloo rek mu ngi weddi yàlla ci lu mu xam ak lu mu xamul ak ci lu mu yëg ak ci lu mu yëgul kon nit su ñëwee di wax di la wax li yàlla wax ci lii jëlal sa temps déglu ko soo ko dégloo nga dem vérifier lim lay wax soo ko vérifié yaa koy gisal sa bopp xam ne ah yàlla sama borom kat lii la wax ndax lii fàttali nañ ko ay yoon te loolu da ngeen koy gis ci même ba ci fan yi maa ngi koy wax ci li ñuy wax layatul xadr nit ñi nit ñi di wax ak njëriñ yeñ cay wax ak am na waxtu woo xam ne géej gi day saf suuka rek xamu yu kenn xamul yoo xam ne dañ ko fi daan wax nit ñi di ko wax may leen yéen da ngeen a fàtte ne yàlla moo ñu gën a bëggal njëriñ te yàlla lépp lu ñu amal njëriñ digal nañu ko lum ñu digalut lum mën a doon lu ne amaluñu njëriñ lim ñu digalut nag képp ku tax ba ñu koy def kooku mu ngi leen di lor kum mën a doon ndax képp koo xam ne dalay def loo ci diine lu la yàlla digalul kooku mu ngi lay bokkaale loo yàlla kooku mu ngi lay bokkaale loo yàlla te dangeen di jëf loo xam ne yàlla digalu leen ko ay nit ñoo leen koy jëfloo ngeen di ci yaakaar ak payu yàlla te loolu lu ngeen ci jëf te jàpp ne lu baax la day màbb te loolu yàlla ko wax de bi muy wax ne maa kaana lil mushrikina an yaamuru masajid allahi shahidina ala anfusihim bil kufri lum ci teg ulaika habitat amaluhum wa fi nnaari hum xaalidun yàlla mu ne warul ci bokkaalekat yi ñu dundal jàkkaay yàlla yi ndax ñoom dañoo seede ci seen bopp ak weddi seede ci seen bopp ak weddi te jëmmi jëf lu la yàlla digalul ci diine loolu ak tooñ la jëmm jëf li la yàlla digalul ci diine loolu ak bokkaale la te kan ngay bokkaaleel yàlla yaa ngi bokkaaleeg yàlla ki nga xam ne moo yoonal loolu tuddee ko diine yow nga jàppee ko diine di ci dox ki yoonal loolu ngay bokkaaleel yàlla moo tax yàlla di wax ci alquran ne am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diini maa lam yaazan bihillah wala boog ñoom dañoo am ñu ñuy bokkaaleel ñoo xam ne dañuy yoonal ci diine loo xam ne yàlla joxewu ci ndigal kon képp koo xam ne yaa ngi jëf loo xam ne yàlla digalu ko nga naan lii lu baax la ñun lu mën a xew dañ koy def waaw ñun lii nàngam ñun lu mën a xew dañ koy def ba mu neex wala nangam nga jàpp na léegi ki lay wax nga koy def te fekk na xamoo ne sa bopp ngay lor yaa ngi màbbal say jëf te suñ boroom mu ne ñooñu safara la sax bokkaalekat yooyu mooy ñi nga xam ne dañuy màbbal seeni jëf te suñ borom mu ne ñooñu safara la ñuy sax te yàlla mooy xam ne ne kii bokkaale yàlla ku ne yàlla dafa xaraamal ci yow àjjana man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawaahu naaru wa ma lizalimina min ansar ku bokkaale yàlla ku ne ci dëgg-dëgg yàlla araamal na ci yow àjjana waa léegi yow ngay def loo xam ne luy araamal ci yow àjjana la nit di la ko wax nga naan ko waa ñun lu mën a xew dañ koy def xam nga loolu ñàkk xam moo koy jur moo tax faaw ngeen bàyyi xel lii ndax yonent bi ca boppam sax yàlla loolu da koo waxoon ne ko wala xad uxiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wa takunanna min alxaasirin yàlla da ko wax ne ko ci dëgg-dëgg wax yu nañ mu jëm ci yow ak ci ñi nga xam ne ñoo la jiitu ne soo ma bokkaalee danañu màbbal say jëf te da bokk ci ñi nga xam ne dañuy yàqule yàlla yonent bi la ko waxoon yéen nag ay nit ñëw ginnaaw yonent bi saxal ay jëf jëf yooyu ngeen nekk ji di ko jëf ñu leen di bàyyiloo xel di leen bàyyiloo xel li yàlla jàngale di leen wax ne tey ngeen a yem fi leen yàlla yemloo ngeen naan lu mën a xew dañuy def lii lu mën a xew dañuy def laa mu mel ni léegi yéen loolu ñun ngeen koy def te fekk ne seen bopp ngeen koy def ndax lii loo xam ne la mën naa wax ne bi koor gi tàmbalee ba léegi may waxoon ne dinaa def lu mel nii publier ko ngir nit ñi bàyyi ko xel xam ne ñu ngi sànq seeni jëf di tàbbi ci tooñ yàlla di tàbbi ci weddi yàlla di tàbbi ci bokkaale di xañ seen bopp àjjana ëllëg ñu leen koy bàyyiloo xel di leen ko fàttali ñuy jàppale dañuy gën a dëgëranteeg bopp ak ñun te fekk na ñun kat suñu yoon newu ci ñun li yàlla wax képp la ñuy fàttali képp ku yàlla defal ndimbal yaa koy bàyyil xel sa bopp dem vérifier sa bopp aay gisal ko sa bopp su boobaa da nga xam fi ngay yem ci mbir yi kon moo xam lu mu mën a doon luñ leen mën a wax ne diine la laaj leen fan la yàlla digle loolu lu yàlla diglewul ku ne képp ku koy def jàppeeku diine yaa ngi bokkaale yàlla te kon yaa ngi xaraamal ci sa bopp àjjana mu nekk lu wóor ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum